Bienvenue sur Salam Vision. وصلى الله تعالى على سيدنا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 mbokki eh, yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam si ne ñooy bàyyi xel seen site bu mag bi noo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara waaye di leen dokkeel bu baax a baax waaye di leen di jiital si nuyoo bi ak siyaar bi xalifa général di murit di sëriñ taxa di ñaan suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te wér ba naal yi nga xam ne si ne moom la yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa mu def ci lu kawe njortam waaye noonu tamit lan koy nuyoo sëriñ Seex Jëmm Faal ak mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp kon mu mel ne tey dina ñëw seet si kilifa gu mag euh, di Serigne na Mbacké ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax waaye tey ñu ñëw fii nii euh, ci Sonde Captage euh, ngir seet ko waaye wara a moom tamit ab jataay jataay boo xam si ne incha allah jataay bu am njariñ lay doon ndax ku ne faj Euh, ak yu demee noona nga xam ne si ne kon jar na nga xam ñi nga xam ne si ne ñoom ñoo ko man dëgg dëgg dëgg nga dem seeti leen kon tey danan xuus ak moom ci waxtaan lan mooy faj ak yi nga xam si ne moo jëm ci wàllum ñaan asraar ak yu demee noona dinañ xuus moom ci waxtaan woowu bu baax a baax a baax a baax ba nga xam si ñi nga xam si ne danañ ko itteewoo te xam ne am na ku ko man ñu mën a ñëw ci moom incha allah kon Serigne Cheikhouna Mbacké borom solution lan seet si tey. fii di so fii ci zone de captage euh, muy sunu jëwriñ xam naa di jéglu bu baax Mbàkke Balla ci toog bi nga xam ne si ne moom lañ toog ak yow ci kaw ndax euh, liñ baaxoo gis taalibe moom bu ñëwee ci ab sëriñam daa war a toog ci suuf moom mu toog ci kaw kon loolu moom ñu ngi koy dogal ngant bu baax a baax kon su ko defee ni ngi def rek mooy daal di jox kilifa gi mu daal di nuyoo muy Serigne Cheikhouna Mbacke bu ko defee ñu daal di mën a ñëw ci laaj yi nga xam si ne moom lañ fas yéene séq ak moom kon Serigne Cheikhouna Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu audu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya wala mursala baada mbokki xidmatul xadim ñoo ngi leen di fay nuyoo bu baax te am mbégte jàkkaarloog yéen ngir waxtaan ak yéen si fànn gu am solo muy ilmul asraar di nuyu mbokki Sénégal yépp ñiy seetaan si biir réew ak si bitim réew te di leen wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu te di leen baalu xaq te di leen baal xaq tey ñaan suñu borom jéggal ñu te defal ñu dégg ak topp ak jariñu waaw kay jërëjëf waaw kay jërëjëf sëriñ Mbàkke ci nuyoo bu am solo boobu noonu xam naa ñu daal di dugg ci waxtaan wi rek incha allah euh, xam naa suñu laaj bu njëkk bi nga xam si ne moom la ñuy njëkk jëmale ci sëriñ Seexuna Mbàkke mooy lan mooy asraar ndax am na ñu bari ñoo xam si ni ñi dégg baatu asraar Euh, te xamuñu lan mooy dëgg-dëgg asraar kon xam naa ba ñoo dugg ci waxtaan wi rek day koy laaj lan mooy asraar bu ko mu leeral ñu ko ñu gën a xuus ci biir kon sëñ Seexuna Mbàkke waaw laaj bi am na solo lool te itam dinañ si am mbégte lool ngir leeral ko laaj bi nag day mel ne da ka laaj si jamonoom ndax jamono ji laaj lan mooy lasraar day farata li tax muy farata nag day ñaar dafa bëri lool ñiy woote wa ay aalimul asraar mooy ñoo xam ne dañuy woote woon ay sayxul asraar lañ. ba tey tamit jamono ji ñu toll foo xam ne xew-xew yi bëri na ba nga xamante ne si suñ jëfandikoo woon xam-xam boobu lu gaaw la si solution yi saafara xew-xew yi jamono. lasaraar rek ngir ñu leeral mooy lan sa dëgg-dëgg xam naa du xat du xaj si benn jotaay ndax yaatu gum yaatu waaye ñu jël si ay quelques point rek ngir leeral ko mbokk yi nga xam ne suñ déggee dinañ xam ne lasaraar xam-xam bu riche la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la. lasraar xam-xam la boo xam ne suñu borom bi subhaanahu wa taala moo ko jagleeloon lenn ci jaamam yu baax yi ko daan jaamu mu doon xam-xam boo xam ne nag suñ ko doon leeral dañ naan benn mbaar la mu mag moo xam ne juróomi ponk mooy juróomi poto ñëw ko téye poto yooyu tamit benn bu si manqué rek maanaam mbaar mi du mën a taxaw bokk na si poto yooyu mooy ilmul ilmul adat ak ilmul xawaatim ak asmaullahi alxusna ak xilmun nujum juróom yooyu mooy poto yi nga xam ne moo tee mbaar mi nga xam ne benn bu si manqué rek mbaar mi du mën a taxaw léegi nag xilmu xuruuful asma mooy lan tur woo mën di gis si àdduna say araf mooy ay leetar la composé woo leetar yooyu nag dafa am lu ñu naan leetar sulmaani yu am lu ñu naan leetar nuuraani yu mooy leetar yoo xam ne ay leer lay tegtale waaye tamit am leetar yoo xam ne ay lëndam lay tegtale ba tey tamit si biir leetar yooyu ñu ëppante doole du notante am leetar yoo xam ne dafa am doole lool waaye dafa am leetar yoo xam ne dafa néew doole léegi nag faaw sayxul asraar bi xam loolu ngir nit ki nga xam ne wala aajo ji nga xam ne moom la bëgg a faj mu mën a ràññee lan mooy leer sa turwa ak lan moo say lëndam ak lan mooy sa la am doole ak lan mooy la sa néew doole ngir mën a xam fa muy jaar pour aajo jooju faju beneen bi si des muy beneen bi beneen poté bi mooy ilmul adab xilmul xayraat moom it dafa doon ponk bu am solo boo xam ne mënut a ñàkk si sayxul asraar bi mu xam ko ndax la lasraar képp ku kay def faw yenn saa yi ngay aajo woo xaatim waaye faw yenn saa yi ngay aajo wa talisam waaye faaw tamit yenn yi ngay aajo woo turu yàlla. léegi nag yooyu nag naka ngay fajee aajo ji wala mbir mi naka ngay koy saafaraa si fànn googu faaw nga xam xilmul adat xilmul adat mooy calcul xam-xamu calcul. ba xam mbir mii tur wii wala mbir mii soo ko bëggee liggéey su turu yàlla nan nga koy jaaree pour mën si am résultat. wala soo ko bëggee daggal xaatim comme que xaatim lépp ay leetar la nañ si ñëw si kanam nan ngay jaaree ba am résultat wala soo ko bëggee daggal talsam boole kaag tur yàlla wala nga boole kaag yeneeni tur nan ngay am pour am résultat sa loola nga bëgg kon ilmul xadat tamit dañ siy déggee ne xam-xam la boo xam ne mënut a ñàkk si kii woote woon ne sayxul asraar la mu xam ko beneen bi si topp muy xilmul xawaatim xilmul xawaatim dafa doon ponk bu ama am solo si xilmul asraar boo xam ne lu mënut a ñàkk la ndaxte xaatim dafa doon mbir mu yaatu moo xam ne maanaam aajo ju nit mën a am maanaam soo ko jaaree faneen muy jël temps bu yàgg soo ko jaaree si xaatim day gën a gaaw waaye nag mën nañ ne bu fekkee ilmul asraar am na dansé dansé bu lasraar si xaatim la ne na xaatim lépp ay chiffre la tey itam lépp ay leetar la ndax lu ñuy dagg la rek di ko sol léegi nag ñëpp xam nañ ne soo jëlee plus un plus un ñëpp xam nañ ne égal deux la léegi nag li tax mu dansé mooy nit ki koy def te xamu ko su defee su soxlaa deux daa def un plus deux su boobaa trois lay am te trois boobu mën naa jur conséquence waaye mën naa jur dansé waaye mën naa jur ay gàllankoor sa la mu bëggoon a saafara mu doon saafara su jur jàngoro kon moom itam lu mat a xam la te itam lu mat a bàyyi xel na waaye tamit lu mat a teey la beneen bi ci des mooy asmaullahi asmaullahi husna maanaam turu yàlla yi maanaam dafa am turu yàlla yoo xamante ne si day dox si aajo am turu yàlla yoo xam ne day dox si saafara am turu yàlla yoo xam ne day dox si lu ne maanaam turu yàlla yi dafa yar 99 la si yi ñu xam yi ñu miin donte am na bëgg mottali 100 waaye loolu du waxtaan bi nañ leeral si 99 yi. léegi 99 yooyu noonu maanaam bu si nekk rek am na mbir moo xam ne soo ko soxlaa soo ko fa jaaree sa gën a gaaw ndax ñëpp xam nañ ne turu bi ñuy woowee ar-Razzaq muy yàlla miy wërsëgale ak tur yàlla bi ñu woowee alwahaab daanaka benn la wërsëg ak may benn la waaye nag aajo ji soo koy faj ndax danga koy jaar ci razaq wala danga koy jaar ci wahaab loolu tamit xam-xam la boo xam ne nit ki dak fi kaa war a xam beneen bi si topp mooy ilmu nujum moom nag mën naa ne mooy base bi mooy ndayu xam-xamu ilmul asraar ilmu nujum nag suñ ko waxee moom xam-xam la bu yaatu la boo xam ne moom rek mën na ay émission émission te du jeex waaye liñ siy leeral rek nga xam ne moo intéressé thème bi mooy dafa am lu ñuy woowee alkawaakibu sab'a ak ay buruuj alkawaakibu sab'a mooy yaakaar naa moom la tubaab di wax naan système solaire les systèmes de solaire xaw ma léegi alkawaakibu sab'a yooyu mooy as-samsu alxamar al ataarid as-sahra al mariq al mustari léegi yooyu noonu bu si nekk maanaam dafa am doomu aadama ju nekk. sa tur dafa am benn kawaakib benn kawkab bu mu méngool ci kawkab yooyu noonu moo xam ne moom la ay seeni mbir dafa dëppoo am na ñoo xam ne seen kawkab dafa seen mbir dafa dëppoo ak samsu am ñoo xam ne seen mbir dafa dëppoo ak xamar am ñoo xam ne seen mbir dafa dëppoo mariix ba mu jeex léegi nga faaw nga maîtriser xilmul nujum ngir xam nit kii maanaam biddiwam bi nga xam ne moo dëppoo ak ay mbiram kañ la biddiw bi di fenq di daw muy tawaali yi maanaam kañ la biddiw bi di fenq ak kañ lay so léegi waxtu yi muy fenq soo si xamee maanaam soo ko si defalee aajo soo amee aajo soo ko ñaanalee si waxtu yooyu mën naa faju su si yàlla àndee su amee jàngoro soo bëggee saafara mën naa faju su su amee lu muy sàkku tamit te mu jafe ko lool soo xamee waxtu yooyu noonu soo si jëfandikoo xam-xam mën naa am aajo jooja la ko jafe woon yomb ko su ko su si yàlla àndee waaye nag ba tey dafa am waxtu yoo xam ne kawaakib yooyu si lay so su xasee so nag nit ki moo xam jàngoro la moo xam aajo la moo xam yitte la lu mu mën di doon looy xam bëri bëri xam-xam soo jëfandikoo aajo ja sa waxtu yooya la nga am mën nga see bañ am résultat la nga soxla mën nga see am bañ am résultat kon daal ilmul asrar xam-xam la bu yaatoo yaatu loo xam ne loolu mooy ponk yi nga xam ne mënu see ñàkk léegi nag mu des sew-sew maanaam loolu ku ko jàng di nga ko xam waaye ginnaaw bi nga ko jàngee xam ko ba pare ndax di nga mën a doon sayxul asrar bu mën a ñaan loolu nag tontu bi mooy déedéet maanaam lépp lu mu mën di doon si xam-xam maanaam jàng ko tax na kaa xam waaye taxu kaa mën sooy xool lu mel ne seen métier mi di journaliste nit ki su ko jàngee ba am si ay diplôme am faaw mu def stage pour xam métier mi mooy lan xilmul asrar tamit jàng ko mën nga xam si tawari waaye pratique bi mooy des pratique bi nag dafa am ñaar dafa am lu ñuy woowee nuuraani yu am lu ñuy woowee sulmaani yu nuuraani yu bi pour nga mën pratique bi faaw nga tarbiyewu ko tarbiyewu gi mooy nga jël ay turu yàlla di ko tarbiyee di ko liggéey di liggéey ba mu wuyu si la nga mën a sukkandiku si loolu bay faj di def di diñ bu fekkee wàllum sulmaani yu bi la faaw nga seytaane yi ngay jëflanteel ngay xool lu leen di neex nga leen koy def bañ wuyu si la ba bëgg si yow pour soo amee aajo ñu jàppalee sa mu sotti kon daal xam lasraar jotiwut dara ak mën a ñaan mën a ñaan moom ijaaba la ijaaba nag li koy maye mooy ak tàggatu nangoo jaamu yàlla nangoo werd nangoo la nangoo muñ yu bëree bëri kon daal ilmul asraar li nga xam ne moom lañ si mën a leeral si tënk mooy loolu noonu jërëjëf euh, Serigne Cheikhouna mu mel ne kaddu yi am na solo lool ndax boo xoolee ni nga ko indee nii nga xam si ne juróomi ponk yi nga xam si ne moom ngay man doog a mën a doog a xam dëgg-dëgg xam-xamul asraar mu mel ne dafa bari ñoo xam si ne dama leen di gis ñu bari ñoo xam si ne noo dugg ci euh, ay euh, xam-xamu asraar te mën naa ni boo leen laajoon ni leen ndax ñaata ponk la am. xañ na mën na la ko bañ wax wala ni nga ko waxee nii mën naa bañ a leera noonu mu mel ni kon wax ji macha allah am na solo lool ci nga xam si ne noonu nga ko waxee muy juróom ponk la benn bu nekk tamit nga indi ca la xam ne si ne moom nga ci war a indi ngir ki nga xam si ne mooy seetaan mën a xam ni ah lii kat lu nu war a jàng la ndax am na ñoo xam si ne fi ne tey sama classe gi mën nanoo ubbi fee daal ni ñun kat euh, sëriñu restaurant la day seet yooyu noonu te amaana Euh, li nga xam si moom nga indi nii ñoom duñ ko xam ndax duñ ko jàng li leen fay dugal mooy ngir bëgg nit ñi ñëw wala ñu bëgg say koppar wala yu demee noonu waaye li nga indi nii képp ku ko déglu dana xam ne yow lii loo jàng loo maîtriser la kon bu ko defee xam naa sëñ seexu naa day jàll ci beneen laaj bi rek mooy euh, listixaar ak seet lan moo leen wutale ndax ñoom ñaar dafa mel ne danoo danoo nuroo mel ne lu bokk bokkuñu ndax boo xoolee am na ñoo xam si ne day seet boo ñëwee da gis ñu yëngal pitaaw wala nàngam ak nangam ñu ne tamit am ñu ne listixaar moom mooy bi nga xam si ne moo gën maam daal ñoom ñaar boo ñu ko bëggoon a wutale la ba ñi xam si ni ñooy seetaan mën a xam listixaar ak seet lan moo leen wutale sëñ Seexuna waaw listixaar ak seet bëri na ñu naan benn la waaye du benn listixaar moom yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ñu ko jàngalal boppam. mbir la moo xam ne jërut kenn di ko defloo kenn ku nekk rek daanaka mënal nga ko sa bopp ginnaaw boo mënee ñaan gi ñuy ñaan ba pare mooy da ngay jàpp ba sell julli ñaari ràkkaay yu sell si waxtu wu daga na naafi la daal di ñaan sa soxla sa nga bëgg moo xam tukki la moo xam soxna sooy bëgg la moo xam oto booy jën la moo xam kër gooy jënd la moo xam mbir mooy lijjanti la nga ñaan sa suñ borom defal la sa jàmm ak salaam tëdd bu fekkee ko am gént nga mën ngaa gént loo xam ne day saxal ne lii aw yiw la lu mel ne ay ndox ak ay xéewal ak ay taw ak yooyu day tegtal lii lu baax la bu fekkee ko am gént nga mën ngaa gis ne ab safaan la muy ay tàkk-tàkk ak yooyu soo gisee day wane na mbir moom baaxut waaye nit ki mën naa def listixaar tamit suñ boroom defal ko sa la mu bëgg te du gént du def dara loolu tekkiwul na ndax listixaar ñaan la rek al istixaar mooy ñaan rek seetloo yàlla li nga bëgg ngir mu defal la si ndam moom nag ñaan nga si yonent bi indi woon siiw na muy allahuma inna nastaxiruka bi ilmika ba mu jeex loolu xam naa day gudd waaye loolu mooy listixaar ku nekk mënal nga ko sa bopp yenn saa yi na nga gis sëriñ soo xam ne sama mbokk sëriñ si am na ay benn benn yoo xam ne ndaw kundaay dañ ñaan ñun dañuy fanaanoo waaye fanaanoo moom xëy na lu mën a nekk la waaye nag képp ku la fanaanoo xëy wax la lu ëpp ñaari baat jàpp ñett xamal na ko ak say caaxaan la ne ndax listixaar mbir la moo xam mbenn mbir rek mën a xool mbenn mbir maanaam kii day tukki tukki bi baax na am déet nga xëy na ko na wala baaxut waaye seex mu mel ne euh, foofu li ma fi seetlu mooy bari na ñoo xam si ne maam da ngay ñëw ngir ñu xoolal la ñu seetal la ñu la la day lay fanaanoo te boo xëyee mën nga ñëw ñu wax la fukki baat yoo xam ne si ne kii na kon daal kon ndakate listixaar maanaam benn baat lan lay wax wala wërta weesu ñetti baat waaw listixaar daal liñ naan listixaar listixaar xëy na nag sëriñ si dañoo bëri feem waaye liñ naan listixaar nga xam ne mooy li wér mooy képp ku ne la dama lay fanaanoo defal la ko xëy wax la lu man ñaari baat jàpp ñett soo ko nangoog soo ko nanguwul kooku moom xamal ne day tappale listixaar moom benn baat lañ si war a wax muy lii baax na baaxut gën na gënut defal li defal laa loolu benn baat waaye nag ay nangam di tawar yi wax di wax lu mat cinq minutes ci benn guddi nga gis loolu loolu moom xoromoon na loolu loolu adxaasu axlaam la gën a nuur si listixaar bu seet nag seet moom bëri nay xeet lool comme ni nga ko waxee am na ñu koy defee si ndox am na ñu koy defee si kurus am na ñu koy defee si suuf am na ñu koy defee si ay kayit am na ñu koy defee si béjjën am na ñoo xam sax nee nañ moom téléphone lañ koy defee bëri na waaye li gën a wér mooy loolu lépp xëy na xam-xam la ndax xam-xam dafa yaatu waaye yooyu yëpp rek bu si nit jëfandikoo ak nit mën na kaa defal nit ba noppi nit ko wëlbati ne ko gisoo ma ndax loola dafa amul ndëslaay si xam yooyu noonu maanaam ndëslaayam dafa dëgërut mën nga see defal nit gis ko lool waaye mën ngaa defal nit tamit doo ko gis waaye seet gi nga xam ne mooy li wér nga xam ne ko sa jaar nit mën nga kaa gis gis gu wér te du am lenn lu muy sikk sàkk si gis googa seet googa lu ñuy jàng la deesu ko donn sa ay maam deesu ko judduwaale deesu dab nit loolu xam-xam la boo xam ne dañ koy jàng ndax dafa am xam-xam yoo xam ne pour nga mën a seet seet gu wér xam nit ki avenir am ak ay mbiram ak ay jàngoroom ak ay saafaraam loolu noonu faaw nga jàng ko ndax damay wax ne sëriñ warul di laaj aajo ab sëriñ warul di laaj nit ñëw nga naan ko luy sa aajo déedéet ab sëriñ warut a def loolu sayxul asraar soxla la si listixaar si ngay xamee lan moo ko fii ni lan moo koy saafara léegi nag xam boobu nga xam ne seet faaw nga mën ko pour mën a feew nga mën yooyu maîtriser yooyu pour mën a seet bokk na si xilmu nujum gi ma doon wax léegi ndax xilmu nujum si nga xamee tabia nit ki ak ay rawxaanam ak yooyu bokk na si tamit xilmul xadat ndax faaw nga def mën calcul pour mën a calcul turu nit ki lim jàpp faaw tamit nga mel ne ilmul huruf xam pour xam xarafi nit ki tur xarafi tur wi lan la jàpp ak lan lay signifier léegi nag yooyu soo ko xamee ba pare nag di nga mën a seet loolu mooy tax doomu aadama ji su ñëwee jàngoro ju mu mën di indi si àdduna soo xoolee di nga ko wax jàngoro ji lii moo la ko teg te lii moo koy saafara ndax jàngoro ji sëriñ di saafara la wala lu médecin di saafara. ba tey bokk na si tamit ki nga xam ne dafa am aajo nga ne ko sa aajo jii de soo defee léegi lii dina sotti nangam ak nangam ki dem sax réer ay mbokkam xamuñ fiñ ne si loolu ngay ko ba xam ndax mi ngi si jàmm fa mu nekk sagoo ko fa bàyyi wala dafa faatu wala mi ngi dund wala dina dellu si. bokk na si tamit kiy bëgg wala muy bëgg kër wala muy bëgg oto wala muy jënd euh, wala muy takk soxna nga xoolal ko ba xam lii muy dugg su si dugg dina si am ndam ak lim siy sàkku dina ko sam wala am na ay jafe-jafe kon daal lee mooy listixaar lii mooy seet seet nag comme ni ma ko waxee laay baamu moom lu ñuy jàng la waaye doonut lu ñuy doon si ay maam doonut tamit loo xam ne dañ koy judduwaale jërëjëf sëñ Seexuna mu mel ni leer na nañ waaw kon listixaar ak seet kon lu wuute la kon ñee xam se noo jàpp ni lu denn la wala ñoo bokk sax nan xam ne listixaar ak seet bokkuñu kon jërëjëf sëñ Seexuna ci leer yu am solo yooyu ku ko dégg xam ne li muy wax nii lu mu man la lu mu xam la tamit te lu mu jàng la kon xam naa sëñ seexu naa xam naa day jàll ci laaj rek ki nga xam ni mooy seyxul asrar ndax ñaan rek lay man wala dana mën a faj ndax day gis ni ñi xam si ne ñooy def asrar xaj na boo ñëwee ñu seetal la wax la ni nangam nangam waaye am na su ñoo xam si ne xaj na nan lay mën a la dëgg dëgg dëgg ba laa xam si moom lañ gis euh, ñu mën koo saafara ñu baree bari xaj na loolu duñ ko man ndax ndax ndax sayxul asraar moom dafa war a yem ci maam ku ñëw mu seetal la rek maanaam bu la seetalee gisal nañ la ah yow kat lii moo la dal waaye nag am na ko la mën a faj wala nangam nangam waaye wala wala sayxul asraar moom dafa mën a boole seet ni la nangama la faj eh, nangama la dal su noppee daan ni la tamit mën naa la koo ñaanal ndax ñaar yëpp sayxul asraar mën na ko. waaw sayxul asraar moom dina mën a faj waaye yan jàngoro lay mën a faj tamit loolu sew sew la ndax da jàngoro day ñaar dafa am jàngoro yoo xam ne jàngoroy médecin la moo xam médecin moderne wala médecin traditionnel am jàngoro yoo xam ne jàngoroy mystique la sayxul asraar bi nag bu fekkee sayxul asraar la dina mën faj jàngoro yi nga xam ne mystique la lu mel ne jàngoro yi nga xam ne cat moo koy waral wala jàngoro yi nga xamante ne si liggéey moo ko waral wala jàngoro yi nga xamante ne si rab moo ko waral wala jàngoro yi nga xamante ne si maanaam ay ngelawu saytaaneeg yooyu moo ko waral. bu dee jàngoro yooyu nag sayxul asraar dina ko mën a faj si sukkandiku si lasraar ba mën ngaa faj ndax su defee listixaar xam ndax kii jàngoro jii ko dal si cat la bàyyi ko wala si rab la bàyyi ko wala si saytaane la bàyyi ko wala si ngelaw la bàyyi ko a faj yooyu bu fekkee sayxul asraar la waaye ne jàngoro yi médecine la moo xam médecine moderne wala médecine traditionnelle doo ko mën faj lu dul ne da nga kaa jàng sayxul nga kaa doon xam lasraar loolu mën a ñaan wëlbati ko tamit jàng médecine mën ko nga xam da ngay asraar rek nga mën xam ne jàngoo euh, médecine traditionnelle jàngoo médecine moderne moom su boobaa la nga mën moo la nga mën mooy saafara jàngorey mystique wala jàng wala jàngorey euh, jàngorey mystique wala jàngorey médecin moom ki kim dal day dem sa médecin yam mu saafaraal ko ko waaye sayxul asraar moom lim mën a faj daal fekkee sayxul asraar rek la lim mën a faj mooy jàngorey mystique waaye mënut a faj jàngorey médecin. Mhm. waa kay jërëjëf euh, mu mel ne laaj boobu tamit am na solo lool ndax loolu tamit lu jar a bàyyi xel la kon euh, jar naa bàyyi xel kon képp koo xam si ne maam da ngaa yor jàngoro joo xam si ne euh, jàngoroy médecin la loolu kon dangay dem seeti ñi nga xam si ne ñooy médecin yi ñu man la ko fajal euh, su ko defee xam naa Serigne Cheikhouna képp ku ko bëgg a jot rek man nga woo ci 77 494 77 38 77 494 77 38 xam naa da ngeen gis numéro bi affiché ci suufu écran bi sax incha allah kon mu mel ni Serigne Cheikhouna mu mel ni kon bàyyeegun la ba léegi ndax tey moom dana war a leeral lu baree baree bari ndax maam yëf yi dafay dafa yéeme muy dëkk bi ndax dangay gis koo xam si ne euh, da doon nekk ci métier sax maanaam doon liggéey wala dara léegi mu ne ko fa ñukk ni day dugg ci wàllum ñaan te lii dafa nekk loo xam si ne lu war a jàng la waaye lu war a man la. kon nag dafa war a euh, leer te ñi nga xam si ne ñooy dem ci ñiy ñaan war noo xàmmee ñaankat yi dëgg-dëgg na ci wàllum asraar kon sëñ seexe naa kuy woote woo ko. ki jug di ko wuy ji yan jafe-jafe la ko mën a indil ndax yaa ko wax ndax nee nga maanaam xam-xam la boo xam si ne maanaam des koy jàng ki nga xam si ne nag jëng ko maam ni comme mel ni man rek ma ma nekk sama sama sama sa dem luyee sama néeg daan ni euh, sëriñu asraar la su ko defee ñi nga xam si ne nag ñoo ñëw di ma wuyu te fekk na booba man jànguma ci dara kooku yan jafe-jafe ko mën a indi sañ seexu naa waaw loolu moom dañ kaa ñaxtoo ñaxtoo ñaxtoo ñaxtu mu metti ñu lool ba suñ génn gi bokk na ci li ko sabab ndax génn gi bokk na si li ko sabab rek daanaka li nga xam ne mooy xellee génn gi mooy leeral nit ñi pour ñu yeewu te xam te xàmmee ndaxte adduna dafa doy waar. maanaam foo policier ni mu amee nga xam ne policier ni mu fooree seen garaar yooyu ak seen lii om de tenue nit dem ba dee leen piraat seen métier mi ngeen muy journaliste ñaata nit ngay gis ñu koy woote woote doonuñ ko. maanaam ak leneen ak leneen noonu la amee si sëriñ si ñoo xam ne wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla wax dëgg neexut ba neexut waaye ñooy nit ñi waaye tamit ñooy tooñ si. léegi nag ki nga xam ne moo jug di dem nag moo war a xam fa mu jëm bu baax a baax xool ko te seetantal ko ndaxte dafa bëri ñoo xam ne dañuy woote woo sayxul asraar te maanaam doonuñ ko léegi nag ñooñ tooguñ seen ruq rek di woote woo ay sayxul asraar noonu daa am lu ñu yor léegi lañ yor mooy xeet yi xam nga lii yëpp ay secret ay xaatim laa ki mbir Mhm. léegi nit ki su ñëwee mhm. nga yëkkati lii jox ko ko mu dem mën a liir mhm. daan ne lii ku def lii nangam ku def lii nangam mu toog si am di ko jëfandikoo loolu kamaatara lañ koy woowee mooy yow kamaatara li muy firi si araab mooy ni nga ko gisee rek léegi yow daal gis nga ne lii aajoy ngam ko am soo defee lii kon daal suñu si wax naa maanaam su ma ñëwoon ci yow ngir ngir ngir ngir bëgg nga ñaanal ma maam nga jox ma nga jox ma ab xaatim maam su ma demee maanaam gis ne lii nga bind ci xaatim bi fekk man ma mën a bind su ma ko bindee ba pare keneen bu ñëwee kon du ma si mën a faj aajoom. ok léegi xaatim boobu noona laa dagg jox la waaye ndax sa laa yam ndax ginnaaw bi nga demee amul turu yàlla yu ma liggéey. xaatim boobu tamit ay numéro la ay chiffre la lan laa sa sol xamoo ko. léegi yooyu moo tax kamaataraa wóorut kamaataraa ni ma koy misaale mooy. nit ki nga xam ne dafa am biir buy metti ñëw si yow seet daan la sama biir day metti nga amoon comprimé yoo xam ne yow dañ la kaa bindaloon si biir bi metti nga jox ko ko mu naan te fekk ne moom waru kaa naan ngir ne am na cardiaque mhm. wala bopp buy metti daf koy sonal war warta naan bi dose bi waru kaa naan mu naan ko su boobaa da koy lor jàngoro eh, saafara la jujur jàngoro mhm. kon sëriñ si bëri na ñoo xam ne dañuy woote wa ay sëriñ di lor nit ñi mhm. soo demee si sëriñ ne ko dama sama wërsëg bëri na ñoo xam ne ndeysaan lañ mënoon am si néew bañ commencé jëflanteeg ñenn sëriñ si sax dañoo da da daa far yàqu ndax soo demee si nit mu lay dox wal loo xam ne day jëm si wàllu wërsëg te joxe la lu wér loola mën na laa tëj soo demee si nit yóbbu fa jàngoro ngir mu saafaraal la ko mu jëfandikoo ak yow loo xamante ne si loola noona xëy na teguwul si xam-xam loola mën naa yokk sa jàngoro. kon daal mbir la moo xam ne mu dansé la moo xamante ne si xëy na ñiy dem war nañoo xam fi ñuy jëm waaye ñi ñuy wuy si tamit war nañoo ragal yàlla bu baax a baax te xam ne yitte ji nit di def ngir am al am amu àdduna wax dëgg yàlla am am amu àdduna neex na lool waaye nag lépp lu mu jëriñ nit ba mu am ko bu fekkee da ngay woote woo si wàllu sëriñ loo xam ne xam-xam la war na laa jëriñ coono bu ko ëpp ngir nga am xam-xam sàkku ji xam-xam xam-xam ku ko sàkku am ko waaye nag bëggoo sàkku xam-xam bëggoo sonn ba na bëgg a tedd toroxtaangee ngay jural sa bopp moom ngay jural nit ñi moo tax daal li may wax sëriñ si rek mooy muy man muy keneen mooy nañ a góorgóorlu si xam-xam ndax xam-xam si lañ lépp ne ndax nit ñi ñàkkuñ fayda yaafuusuñ maanaam doyadiwuñ waaye kooku noonu war ngaa seet sa digganteeg sa borom ba yaakaaram jooj nga barka bañ kaa tas aaju ji mu indi tamit soo la mu yor si loxoom rek la kon daal nañ xoolaat bu baax ñun sëriñ si nañ xoolaat suñu bopp waaye ñi ñuy wuy si tamit nañ xoolaat bu baax baax fi ñuy jëm ok jërëjëf xam naa du ma génnagul eh, ak yow foofu sëñ Seexuna mu mel ni da dem ci ab sëriñ yenn saay nga gis moom loo ko laaj rek mu ne loolu mën na koo faj maam loo ko laaj danaa la loolu mën na ko faj boo ko waxee kii mu ne la mën na ko faj loo ko laaj jàngoro boo ko laaj mu ne mën na ko faj ndax loolu moom maanaam ñooñu uh, ak may la wala ndax loolu mën naa nekk maanaam koo xam si ne moom lépp loo ko laaj ci wàllum sëriñ mu ne la mën na ko faj. waaw xam nga àdduna maanaam wax moom dafa yomb maanaam nit ki su toogee daal ne mën naa nangam wala dem naa fenn wala def naa nangam loolu lu yomb la waaye lii fulla si nit ki mooy man man naa mbakki sama tànk bii duma ko sol mukk samay dàll di jëm foo xam ne koo xam dana mën naa faj lépp ndax man loolu personnellement góoma ko du ma ne nag amul amul ndax yàlla moom maye na lu ne amuma lii kenn amu ko wala mënuma lii kenn mënu ko loolu waxi dof la man nag loolu duma ko wax waaye daal man gëwuma ne si yu mujj yi lii xew maanaam nit ki dina mën a dajale lépp mën ko man gëwuma ne man personnellement gëwuma ne loolu am na yàlla nag mën naa may lépp ku ko yàlla maye tamit ñu nangul la ko waaye man moom duma la gëm gëm nag dafa doon mbir moo xam ne kenn du ko forcer nit xam-xam nag dafa doon ay façon ay façon doonul ne wàllu ñaan xam-xamul lasaraar rek si la nit di sukkandiku bay ñaan di faj aajo déedéet dafa am xam-xam yoo xam ne daf fee yàgg lool yàgg faj aajo yàgg saafara ay jàngoro te ñu ko fi te fi lañ koy bàyyi te mu doon lu wér muy xam-xamu tegtal xam-xamu tegtal am na ñoo xam ne ñi ngi woote woo sayxul asraar wala ñi ngi woote woo ay ñaan ka di faj yi aajo fekk ne xamuñ si lasaraar dara wala mënuñu si ñaan dara lañ yor mooy ay tegtal tegtal tamit dafa doon lu wér a wér waaye tamit moom it lu ñuy jàng la doonul looy judduwaale wala lu lay looy jàng la rek man daal li ma gëm mooy xam-xam lu ñuy jàng la képp ku jàng doomu aadama suñu borom programme na ko noo xam ne lépp lu bëgg a xam rek mën na kaa xam lépp lu mu di fi yitte tamit mën na kaa am waaye am na yoo xamante ne si soo bëggee adduna tamit ba tax jëralu la nga koy def tamit sa diggante sa borom naxoo nit ñi waaye sa ko xam di si faj ay aajo di si saafara dafa yaatu li am solo daal mooy na nit ñi góorgóorlu si sàkku xam-xam. jërëjëf Serigne Cheikhouna Mbacké xam lu ñuy jàng kon loolu jar naa bàyyi xel kon xam-xam des ko war a jàng gëstu ko ba xam dëgg-dëgg xam-xam kon bu ko defee yéen a ngi doon ànd ak Serigne naa Mbacké borom solution dëkk fii Dakar Sonde Captas kon xam naa laaj bu mujj bi rek Serigne Cheikhouna moom la ñuy mujj laaj xañ na jotaay bëgg nañ mu gën a yaatu lool waaye li fi génn si ay njëriñ rek wax dëgg yàlla ñiy seetaan xam na ni bu baax a baax macha allah yow loo jàng la. kon dafa am laaj boo xam dañoo itteel lool nga xam ne si ne dañoo gis léegi ñu baree bari bari bari jëm ci ñuy laaj ba xam ndax ñoom ñaar ñoo bokk wala bokkuñu muy jaaro ak seen ak ndomba ndax ci rasaraar la bokk jaara jaaro ak seen ak ndomba ndax ci rasaraar la bokk walla moom yëfi boppam la daal maanaam jaaro ak seen ak ndomba rasaraar la bokk wala moom yëfi boppam la waaw loolu mën naa ne si lasraar la bokk waaye tamit mën naa ne ndax nii mu jógee léegi noonu la bokkee si lasraar ndax mbir dina bokk si mbir waaye ndax nii la si bokkee tamit day day day am solo mi ngi mal ne nga ne man famille sàngam laa bokk waaye naka nga sa bokkee si ndey nga si bokkee wala si baay wala si imaam wala yooyu dafa am solo bu dee jaaro moom si lasraar la boobu ndax ñëpp ñi ngi dégg ñu naan xaatimu Souleymane xaatimu Souleymane sax dañ koy wax waaye xaatamu Souleymane xaatam si arab mooy fiiri jaaro léegi nag xaatamu Souleymane Souleymane jaaroom ba daan takk moom lañ daan wax xaatamu Souleymane xam-xam di dem ba lasraar tuddee ko xaatimu Souleymane muy la nekkoon sa jaaro ba la dagg xaatim léegi nag loolu nag xam-xam bu wér la boo xam ne soo ko maîtriser xam ko xam-xam-xamu xaatim mooy li ma doon wax léegi mën a moytu danse yi si ne di nga si mën a liggéey jaaro boo xam ne mën naa dox si pouvoir mën naa dox si wërsëg mën naa dox si ubbee mën naa dox si kaaraange mën naa dox si lépp lépp ndax xaatimu Suleymaan dafa doon xaatim bu yéeme loo xam ne su ko nit ki xamee dëggantaan aajo jum si munta faj amut te aajo jam siy faj ga gën a yeex ay mbir yan jour lay doon su ko yàlla nammee ak fajoom kon lu am a am la bu dee wàllu seen moom it seen dafa am yoo xam ne si wàllu xam-xam lu ñuy takk moo xam luy saafara la moo xam luy maye bayra la moo xam luy yokk nit ki la wala luy ubbi wërsëg léegi nag loola nag su la neexee nga def ko ndomba su la neexee nga def ko téere bu la neexee tamit nga def ko seen hmm. jërëjëf Serigne naa mu mel ni kon euh, laajaay ngoog yëpp am na solo wax dëgg yàlla waaye ni mu ko tontoo tamit macha allah leer na nañ kon bu ko defee Serigne naa maanaam ku la ku ku bëgg a xam sëñ Seexuna wala mu jug ngir bëgg a ñëw seet sëñ Seexuna ndax xam naa ñi seetaan danaan yàkkamti maanaam xam fi nga nekk dëgg-dëgg wala ndax yow daa am feneen foo xam si ne yaa ngi fay nekk wala bis bis bu set rek yaa ngi fii nii ci Dakar waaw ñi ngi sant yàlla bu baax tey gërëm di leen gërëm di gërëm ñi doon seetaan di wax ne daal xam naa njëkk ñuy leeral yooyu li ñuy leeral mbokk yi rek mooy jamono jii daal dafa toll foo xam ne maanaam xam-xam lu neex la lu am personnalité lu am maanaa loo xam ne képp ko ko xam wax dëgg yàlla di nga dund bànneex boo xam ne lu dul xam-xam mënula kaa may ñaareel ba tamit mooy aajo damay wax ne képp ku maîtriser xam-xam rawatina xam-xam bii ñu doon waxtaan muy ilmul asrar aajo moom lu muy dëgër dëgër dëgër maanaam su yàlla nammee ak fajom du weesu 41 jours man dama naan aajo soo sa liggéeyee ak ñeent fukki fan ak benn te aajo jo fajuwut aajo jooju bu yeboo nga tey sa te xam ne daa xëy na daa bokk si aajo yi yàlla nëmmut ak fajam ba soobu yàlla nag maanaam fii moom ñaanuñ yàlla nit di fi ñëw mukk 41 jours aajom wut ñu koy fii gën a téye képp ku fi ñëw 41 jours ñu ci faneen sa faju wut nañ la xamal ne fii kat li fi nekkoon moom jeex na bu yóbboo nga wuti ko faneen yàlla nag yàlla ñu yàlla dolli sutura ba ku fi ñëw 41 jours yooyu sax balay mat maanaam sa aajo faju bu dee nekk waay bi nag diggante Touba ak Dakar bu fekkee ñu ngi si biir réew mi fi la ñuy ne ñu ngi nekk Touba euh, Mbal côté Guy Siyaare bu fekkee dakaar la ñu ngi nekk Maris ak zone de captage gi ñu ne daara ji fii la zone de euh, kër gi tamit nekkuwaay bi Maris la waaye képp kuy ñëw rek soo wootee si numéro yi incha allah rabbi fam ñu fekk ñu nekk fa rek suñ jëfla suñ déggante nañ mën a jëflante incha allah. waaw kay jërëjëf Serigne Cheikhouna euh, yéen a ko dégg noonu képp koo xam si ne suñ borom dogal na nga ñëw fi kon sa xel war naa dal ndax képp koo xam si ne dalay ñaanal ni la ah boo ñëwee bu fekkee waxtu sàngam jot na te mun laa fa danaan la li nga xam si ne xamoon naa ko kon jeex na kon loolu ñaan kat dëgg-dëgg moo koy wax ndax am na ñoo xam si ne fii tey mën na la ñett fan la ñuy faj sa soxla ni la euh, day koy faj nga xam si ne moom ñett fan ya mën naa weer sax te doo gis mu faju kon nag moom lii mu wax nii dafa nekk loo xam si ne lu wéer a wéer la wax dëgg yàlla képp koo xam si ne dégg nga li mu wax te déglu ko bu baax a baax danga xam ne si ne kon li muy def nii lu mu maîtriser la waaye lu mu xama xam xam la kon bu ko defee euh, sëñ Seexuna Mbàkke borom solution euh, nekk fii nii sonde captage képp koo xam si ne bëgg nga ko jot rek euh, numéro yi moo nekk noon affiché suuf 77 494 77 38 77 494 77 38 kon sëriñ Seexuna Mbàkke sa kàddu yu mujj waaw ñu ngi sant yàlla bu baax te di ko gërëm tey wax rek ñun li ñu ñor rek mooy xam-xam di wax euh, suñu mbokk sëriñ si ñu gën a góorgóorlu si gëstu xam-xam te doomu aadama te xam ne doomu aadama moom bis bi mu juddoo xam-xàmmee ba ni muy faatoo warut xëy mukk bis ta maanaam jëlul leçon rawatina nag bu fekkee dangaa ngaa benn mbir daan si nga bëgg a dund sa teraangi àdduna si nga ko yaakaar muy wàllum ñaan loolu dafa doon xam-xam bu riis boo xam ne ëpp na di fowe ku ko xamul dong koy fowe kon daal képp ku siy dugg maanaam xam-xam la boo xam ne maanaam du xam-xamu askan maanaam benn askan moomu ko maanaam xam-xam la bu ñuy jàng rek liggéey ko tërbiyewu ko am ko képp koo xam nag ñor na la ba nga bëgg see na nga góorgóorlu baax si sàkk ko te mu jaral la bu baax a baax a baax ndax nga mën si am fayu yàlla am si teraangi àdduna waaye képp koo xam ne eh, am amu àdduna bi rek ngay gis ba tax eh, li nga si war a def si li ko war a jox si te joxoo ko ko tamit am amu àdduna bi soo ko amee naa ñëw te loolu daray àdduna jur ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa rahmatullahi taala wa képp koo xam ne si ne bëgg nga di topp sëñ Seexuna mën ngaa dem solution TV incha allahu da nga gën a gis liñ doon waxtaan ni dana gën a leer bu baax a baax a baax wala Facebook boo demee solution TV moom tamit incha allahu da ko fa mën a topp bu baax a baax a baax kon euh, lii leen leen loon ci seen jotaay bi nga xam si ne moom lañ doon waxtaan ci wàllum asrar di nuyu ñi nga xam si ne ñooy bàyyi xel bu baax di safoo bu baax a baax a baax seen bu mag bii nii bii ñoo ngi leen di ndokkeel bu baax a baax a baax kon xam naa di leen euh, tàggu foofu rek ba beneen jotaay taala waaxiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa sallallahu taala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman bismillahi rahmaani rahim hamdi wa sukuri liman kulli bien sara luhuuri dan dunu suqutil inda sarsara Bienvenue sur Salam Vision.